ba ci ay munaajaat yoo xam ne ay déyaale diggante mu boroomam yoo xam ne euh, daganul sax doomu aadama di ci teg bët ndax euh, ku ne xam na ne sëñ Tuubaa yi dox diggante ak euh, suñu borom yoonu mbindéef yi mën na cee bañ a ne jëriñ ngir lim ñuy jëriñ te jëlee ko suñu borom loolu la ñu attan te ci la loolu la suñu yoon ne euh, di ko sant nag Cheikh mun taxaa ndax saa su ne mu defal lii waa Njaareem li ñu ñaan mooy kattan suñu borom kattanal ko ba mu mën saa su ne di ko def ndax euh, ku ko xam xam ko ci Njaareem moom sëñ taxaa kon defe naa waa Njaareem bég nañu waaye taalibe yëpp tamit bég nañu euh, li ci des it mooy xanaa sant suñu borom waaye suñu xel dem ci li nga xam ne mooy teewlu gi nga xam ne moom Cheikh Mamadou Mountakha da koy am. ci diggante bii diggante la boo xam ne raj-raj loo xaju fi diggante la boo xamante ne euh, yëngu-yëngu boo xamante ne day mel ni xel yi day dem ci àdduna xaju fi li fi xaj rek mooy teew lu xam ne pàkk bii ñu ne foo teg sa tànk rek sëñ Tuubaa teg na fa tànkam loolu dafa doon lu rëy waaye tamit fan yu mujj yi mu def diggante ma boromam foofu sa xel dem ci ne dañoo nekk di waajal ci lu ak ci jaamu yàlla ak ci euh, euh, delluwaat ci suñu borom wan ginnaaw àdduna wan ginnaaw lépp loolu su ci sa xel demee da ngay xalaat ne isri na xaram moo taxaw Cheikh Mamadou taxa dëgg la tam xarit fii la koy fekk mu ànd koog waa Njaareem muy lu rëy waaye dëgg dëgg dëgg liggéey bi mooy waajtaayu fan yu mujj yooyu nga xam ne sëñ Touba ci la ko defee fii war a dem Touba loolu nag ñun dañ koy ànd ak moom ba àgg Touba it ñu ngi fay def ay aménagement yu mag ngir ànd ak moom tamit dundal ko dundal gi yëpp cig dal la ci jaamu yàlla ci jàng xaside